yan vingt cinq millions. vingt cinq ah. vingt cinq yi mbër a ko encaissé. Uh-huh. mbër dem ci Macky Sall mu jox ko vingt cinq millions. ban mbër. Pikine ban leader a fi nekk ci champion. Eumeu Sène Eumeu Sène. moo dem ñu ne Macky Sall mu jox ko vingt cinq millions. huit mille francs la jox mbër. mbër man huit mille. jox ma huit mille de. ñaata lañ la jox man joxuñu ma dara. déedéet déedéet du yoon. du yoon du yoon du yoon. du yoon te. Eh, booy ñaa bu mu déggee daal 37 pour ñoo tax. yaa ngi mhm. ci 37 pour la la député rek ñoo ko ba mu am kattan. oui père Dodo doom see ñëw ko dara. Mhm. mbër nee na ci xaalis bi saal Sall jox mu bëri. ñun fii daal joxuñu ko dara. mais loolu du yoon Malick Ndiaye 37 pour ku ko xam xam ne xam ko ci làmb. askan bi ñoo moom affaire bi. Mhm. nañ leen ko teg ci yoon. ñoom. bu fekkee Macky def na lool Macky ci boppam xalaatul. mais kon Pikine xanaa 200 pour cent bi ñuy wax amu fi xanaa. amul ay duul la xam nga li tax amul. Ah. ay duul la xam amul. Ah. Pikine wax ma kan mooy leader bi. Eumeu Sène ak Ama Baldé lan la fi def lan la def Pikine. Eumeu lan la def Pikine. Eumeu Sène dafa saa Eumeu man dama koy gëj a sax. kenn Eumeu Sène buy defu fi dara. Eumeu Sène kanaara la defe naa la. Boy Niang kanaara la defe naa la. fii mel ni Ama Baldé lañ gëm. waaw Ama Ama moom mooy gaynde gi. demul ci benn président di ko taatam. ñaa ngi dégg ah? a à part loolu nag Pape Sarr moom moom la ñuy wax mi nii naan moom ñoom bu Pikine bu muy métti fu mu ne woon moom. sëñ Modou Niang mooy suñu Pikine bu muy métti moom fa la ne woon. ah kenn xamul Pape Sarr. moom dafa bàyyi ba 2012 bi ñu doog a xam 2020 yi. sëñ Modou Niang. waaw ah, sëñ Modou Niang waaw mooy suñu promoteur préféré suñu représenté. def na si lamb ne. koy suñu promoteur. waaw ah mais Eumeu Sène Eumeu Sène lim def naa ko lu ñuy wax ragaluñu ko Pape Sarr ak Eumeu Sène ak ñun Ama lañ gëm. moo fi dëggal boppam te ñu ànd ak moom ci xarek batar la ñuy dem ak moom ku dul Ama ñun calculé wuñu la te ku ñu si jamee rek woo jëlal suñu téléphone nga woo ñu nga xool nu muy demee foo ne ñu daje fa rayante. ñu cottu ndeyam 25 millions 25 millions 8000. nga yëkkati huit mille di ko jox. non loolu moom rafetlu. cinq millions. loolu loolu ñaaw na trop. cinq millions nga yëkkati huit mille di ko jox mbër. non loolu ñaaw na trop. na la ko dugg. loolu loolu loolu. waa Afia bàyyi eh, nii. na la ko dugg Afia bi. Pikine 37 fu. fii mooy xool bi. waaw ki ko taaf tal bu bees mooy xoolu Pikine. waaw dafa leer dafa leer waaw munoo wax Pikine te tuddoo xool bi. dafa leer ki ko taaf la afiya mooy xoolu Pikine. yaa ngi dégg. ñun lépp lañ xare ñun lépp ci baa booy Tyson ak Balla Beye Ndiaga Diop. ba ci booy ndaw yi. yooyu dara. ku ñu xamul ne du Ama Balde ko ñu ngi wala takkee jabar. baa booy. état bi ngay gis waaw tey leen génnee Pikine ah, ah. ñooñu ay doomu parce que ay doom lañ takk ñun yooyu waxuñu ko ñu wax. ñun suñu dool suñu fit lañu wóolu ak suñu gëm-gëm gëmuñu kenn kiy ñodde ay affaire sëriñ yooyu noonu ah, ñun xam ay dof lañ dof du ragal du calcul ñëw leen ñu ngi leen xaar nag waa dafa yaa Pikine yëpp ñu koy sedd wii kanaara Pikine yëpp ñu ngi xaar te Pape Sarr moo jiite kanaara yi. xool boom moo ko moo cinq moo yan 25 ah. yi mbër a ko encaissé. Uh-huh. mbër dem ci Macky Sall mu jox ko 25 millions. ban mbër. Pikine ban leader fi nekk ci champion. Eumeu Sène Eumeu Sène. moo dem ñu ne Macky Sall mu jox ko 25 millions. 8000 francs la jox mbër. mbër man. 8000 jox ma 8000 de. ñaata lañ la jox man joxuñu ma dara. non du yoon du yoon du yoon. te te ma eh booy ñaa bu mu déggee daal waa 37 pour ñoo tax. yaa ngi dégg. Mhm. ci 37 pour la la député rek ñoo ko do dooleel ba mu am kattan. oui per dogal doom see ñëw ñu ko dara. Ah? mbër nee na ci xaalis bi Macky jox mu bëri. ñun fii daal joxuñu ko dara. mais loolu du yoon Malick Ndiaye 37 pour ku ko xam xam ne xam ko ci làmb. askan bi ñoo moom affaire bi. Mhm. leen ko teg ci yoon. Mhm. ñoom. Mm-hmm. bu fekkee Macky def na loolu. Mm-hmm. Macky ci boppam xalaatul. mais kon Pikine xanaa 200 pour cent bi ñuy wax amu fi xanaa. amul ay duul la xam nga li tax amul. ay ah. xam nga li tax amul. Ah. Pikine wax ma kan mooy leader bi. Eumeu Sène ak Ama Baldé lan la fi def lan la def Pikine. Eumeu lan la def Pikine. Eumeu Sène dafa sàcc Eumeu man dama koy gëj a dégg sax kenn fi dara. Eumeu la defee la. Boy Niang kanaara la defee mel ni Ama Baldé lañ gëm. waaw Ama moom mooy gaynde gi demul ci président di maral taatam. yaa ngi dégg ah. à part loolu nag Pape Sarr moom moom la ñuy am lu ñuy wax mi nii naan moom fu mu ne woon moom. sëñ Modou Niang mooy suñu Pikine bu muy métti moom fan la ne woon kenn xamul Pape Sarr. moom dafa bàyyi ba 2012 bi ñu koy doog a xam 2020 euh, yi. sëñ Modou Niang. Ah, waaw sëñ Modou Niang mooy suñu promoteur préfet suñu représenté. na si lamb lu ne. kooku ay suñu promoteur. mooy ah mais Eumeu Sène Eumeu Sène lim dem ragaluñu ko de lu ñuy wax ragaluñu ko Pape Sarr ak Eumeu Sène ak Boy Niang ñun gëm. moo fi dëggal boppam te ñu ànd ak moom ci xarek batar la ñuy dem ak moom ku dul alama ñun calculé wuñu la te ku ñu si demee rek wu jëla suñu téléphone nga woo ñu waxoon nu muy demee foo ne ñu daje fa rayante ñu cottu ndeem vingt cinq millions huit di ko jox. non loolu moom vraiment. 25 millions. loolu loolu ñaaw na. 25 millions nga yëkkati 8000 di ko jox mbër. loolu ñaaw na. na lépp dugg. loolu loolu waa Afia eh, bàyyi nii. na lépp dugg Afia bi. Pikine 37 fu. bii mooy xol bi. i ko taaf tal bu bees mooy xolu Pikine. waaw dafa leer dafa leer. waaw munoo wax Pikine te tuddoo xol bi. dafa la Afia mooy xolu Pikine. Mhm. yaa ngi dégg. ñun lépp lañ xare ñun dëpp ci Baboye Tyson ak Balla Beye Ndiaga Diop. Ah, ba ci booy ndaw yi. ku ñu xamul ne du doy. Ama Balde ko takkee jabar. baabooy. étage yi ngay gis nga takkee jabar kon ay pikin lañ parce que suñuy doom lañ takk ñun yooyu waxuñu ko ñu wax. ñun suñu doon suñu fit lañu wóolu ak suñu gëm-gëm. gëmuñu kenn kiy ñodde ay yooyu noonu. ñun fan ay dof lañ dof du ragal du calcul. ñëw leen ñu ngi leen i xaar nag waa dafa yaa Pikine yëpp. ñu koy sedd wi kanaara Pikine yëpp ñu ngi leen di xaar te Pape Sarr moo jiite kanaara yi. moo ko moo ko